say auditeurs ak say téléspectateurs du Sénégal bi yëpp bon Birame Sow euh, présentation bi yomb parce que Birame Sow xale bu xale la bu juddoo Sénégal du juddoo dëkk bu ñu ci département du Linguère donc euh, foofu laa jàngee en euh, BFM lycée Blaise Diagne Dakar laa amee baccalauréat euh, dem université en Diop de la la faculté de droit de droit pour la suis un master 2 donc j'ai un master 2 un master 2 en jurisprudence d'entreprise et d'affaires am master 2 en droit économique de la régulation donc euh, depuis 2012 euh, en 2012 nekkoon attaché au cabinet du ministre de l'énergie et des mines Ali Ngouille avant de rejoindre le comité national des hydrocarbures comme expert juriste ensuite ma jóge depuis avril 2020 comme responsable juridique de Petrosen trading et service parce que léegi Petrosen dañ ko def ay structure ñetti structure léegi donc euh, benn bi trading la mooy def euh, tout ce qui est commercial mooy njënd njaay donc euh, man ku laa nekk comme responsable juridique d' accord monsieur Sow est ce que mën nañoo ñëw lan mooy rôle yi juriste parce que léeg-léeg dañ koy dégg ñu koy jaawale ak yeneen est ce que mën nga ko faram-fàcceel ba képp ku la seetaan tey jii nii am lu mu si bu baax a baax. bon bu ñu nee bu ñu nee juriste mooy pratiquant droit c'est mooy pratiquant yoon nga ko xamante ni xam-xamam dafa dem ci wàllum yoon te xam nga yoon nag dafa bari ay pàcc xam nga Sénégal bu ñuy wax yoon rek gars yi dañuy dem ci affaire droit pénal mooy tribunaux yi alors que am na yeneen yoo xamante ni mu ngi fi mooy droit des affaires mooy droit social mooy droit du travail de façon générale droit civil et cetera et yooyu yëpp c'est des ay branches yoon la. donc nag Sénégal ñu ci gën a bëri yi ñu gën a xam mooy ay yoon dem tribunal porter plainte dem kaso tout ça donc ñun nag man sama domaine bu côté boobu man sama domaine c'est le droit des affaires donc mooy droit des entreprises donc conseiller sociétés yi pour prévenir ñoom sociétés ñu bañ am contentieux ak yeneen parce que xam nga àddina boo ci nekkee ngay liggéey nga nekk ci ay société day am toujours contentieux contentieux mën na am mooy problème entre société bi ak yeneen société wala donc ak un tiers donc ñun juriste suñu rôle mooy jàppale société pour ñu bañ am contentieux parce que contentieux day tax société di perte xaalis bëri di perte alal bu bëri donc ñun dañ koy prévenir même bu demee ba contentieux am tamit ñun juriste suñu rôle mooy conseil société bi nu muy def pour mën a gagner procès bi wala pour éviter quand même moom muy muy daanu donc ñun dañuy toujours accompagner société côté droit côté euh, parce que texte société Sénégal am ay par exemple Sénégal dafa mooy entreprise bu nekk da war a respecté te ñun juriste nag suñu rôle mooy wax société yi respecté leen normes yi respecté leen loi yi loi yi la mi teg donc ñun dañ koy teg ci yoon donc société bi ñun daal dañuy commencé société yi pour que ñoom ñu jaar ci yoon donc loolu juriste daal liggéeyam bëri na en tout cas yoon bu buñ ne droit rek mooy yoon donc nag droit nag bëri na ay façon buñ doon jàngalee droit dañuy dem uni delloon université dañuy jàngale droit C'est comme nga les règles les coutumes ak moral xam nga droit mais nous, droit droits ñu appliqué dans les entreprises dans les sociétés mooy boo xamante ni mooy donc nous, aujourd'hui on travaille beaucoup plus sur les actes uniformes parce que droit des affaires a évoluer aujourd'hui boo xoolee OHADA moo am OHADA ay réew yu bëri Afrique ñoom ñoo boole tant que teg benn texte donc euh, mooy texte dit bien mooy ORA boo xamante ni ñun presque aujourd'hui nekk société droit des affaires ci bii la ñuy parce que euh, bii moo ci gën ensuite donc maintenant am nañ texte yoo xamante interne moi le code des obligations civiles et commerciales donc euh, moi pour les contrats donc yëpp dañ ci liggéey donc juriste daal liggéeyam bëri na te am na njëriñ quand même ci réew parce que yoon bu amul si lu monte mën ci doon bu ci yoon amul du baax que ça soit entreprise que ça soit dans la société bu nekk nit ñi respecté ñu yoon réew mi kat du dox donc euh, globalement lii lañ ci mën a mën a expliquer tuuti quoi. monsieur Sow tey euh, def nga benn gëstu xool ndax entreprise yi fulal nañ li nga xam ne moom mooy juriste si seen euh, makkaanu liggéeykaay. waaw moom dañu wax ne xaw naa tuuti nag parce que les entreprises yu bëri léegi dañuy def mooy dañu wut ak cabinet d'avocat dañu wut juriste interne cest à ni moom moo nekk seen entreprise parce que xam naa du tudd seen yu mag yoo xamante ni tey. dañuy def ay chiffre d'affaires de milliards de centaines de milliards mais boo demee seen société amuñ juriste parfois man sax daf may jaar mais société ku nekk tey war nga am juriste interne boo xamante ni kii bu problème amee moo lay tere am moo lay sax sax tax doo am problème parce que moo lay wax bul def lii jaaral yoon bi bul jël yoon bi mais yu bëri nag tey dañuy dañuy wut juriste dañuy dem jël cabinet avocat yoo xamante ni bu problème amee rek lañ koy euh, lañ koy yóbbu alors que en droit on di comme santé ni ñu waxee mieux vaut prévenir que guérir donc noo mën a def parce que droit lu ci gën am en entreprise mooy la prévention te prévention kan moo mën a prévenir mooy ko xam ku mën a sensibiliser ku mën a expliquer nii ñu comprendre mais bu fekkente ni ñu nekk ci entreprise bi duñ ay juriste amuñu juriste mais ñoom dañuy dëkk ci dafay erreur te duñ am koo xamante ni moo leen di wax déet lii kat dañ koy tere boo leen ko defee boo leen defee nii lu yoon bi lii la wax boo leen signé contrat wala nu ngeen war signé contrat bi contrat bi nan ngeen ko war exécuter lan moo lan dox lan donc kooku day évaluer affaire règle société bi mais bu juriste interne te entreprise yu bëri tey Sénégal ñu bëri amul ay cabinet cabinet avocat externe en fonction seen i euh, te loolu dañ ko war a parce que dans l'administration administration xool expert comptable expert fiscaliste mais est-ce que juge doo ko Amoul. c'est-à-dire amul benn tey texte vous organiser les juristes au Sénégal et pourtant lors bi cette ko defoon université Cheikh Anta Diop Dakar lu muy produire si juristes chaque année mbooloo ay ay yeneen université privée yoo xamante ni duma bëgguma def publicité wala ay Gaston Berger a. ak yeneen dañuy former ay juristes yu bëree bëri bëri mais bu fekkente ne woon tey dafa amoon ordre comme nous ñuy waxee ordre des experts juristes aussi mais loolu da doon jàppale emploi da jàppale jeunes yu bëri tey ñu mën mettre en place des cabinets de consultance certes am na ñoo xamante ni dañuy def ay cabinets de consultance mais amul quand même benn règle bu organiser l' expertise juridique même au niveau de l'administration. administration nu ma ko waxee sànq amul benn organisation bu organise juristes yi boo demee dans les cabinets des ministres dafa fekk ay juristes mais en général c'est le rôle day xaw a day xaw a des c'est-à-dire liggéey bu ko war a parce que droit bu ñu leen il xaw dans les cabinets des des ministres parce que souvent da ngay parce que da obligé d'être au droit public parce que administration c'est le droit de l'administration qui le droit public alors fekk na il y droit privé donc de mettre dans l'administration da ngay discuter donc vous moo réorganiser votre fonction juriste dans les entreprises et dans le public d'accord Euh, monsieur Sow tey moom mooy suñu gan seen émission bi nga xam ne mooy émission de découverte euh, tey ñuy waxtaan ak moom si lépp loo xam ne si euh, wàllu liggéeyam la ak loo xam ne xelam def si màcce ñu ñëw si wàllu pétrole coow li bëroon na lool si biir Sénégal temps yi sax wàññeeku na yow sa xel màcce lool si wàllu pétrole est ce nga ñu see ñëwal tuuti rek expliquer ñu pétrole bi nga xam ne moom la expert yu bëri si biir Sénégal ku wax rek nga ne kii la loo ñu si mën a tegal si kaw table bi tey man damay dans ci secteur des hydrocarbures depuis maintenant 8 ans mais pas parce que je suis un expert pétrole demain xaw a aussi quoi parce que quand même expert pétrole je ne pense pas que je suis a expert. parce que suis un expert en tout suis un ingénieur exploration je suis un ingénieur géologue je suis un juriste fiscaliste donc parce que pour nga un expert il faut de l'amont jusqu'à l'aval Le pétrole dafa am dafa am ñetti buñ koy jàngale certes nag ñaar la ñuy wax certes ñaar la ñu gën a xam mooy l'amont pétrolier ak l'aval pétrolier bu ñu nee pétrolier mooy la recherche l'exploration la production maintenant bu ñu nee aval mooy raffinage l'importation des produits finis le stockage le transport la distribution et la commercialisation yii mooy euh, comment dirais les deux parties yu ñu gën a xam mais partie diggante bi am na ce qu'on appelle la le milieu stream c'est-à-dire la partie intermédiaire intermédiaire mooy le stockage du pétrole brut et le transport du pétrole brut et ou du gaz donc yooyu donc nag pour nit nekk expert si tout ça. Mm. gaw ma ne loolu mën a nekk. maintenant nag euh, pétrole bu mu xewee ba léegi Sénégal malheureusement ñëpp ils sont devenus experts mais ne Sénégal suñu réew la loo xam ne réew bu xamante ni parfois nañ ma bal, mais def xaw a doy waar. parce que da ngay xool réew mi thème bu ñëw les gens sont experts en tout man souvent dafa am émission yu may seetaan télé damay gis nit ñi ñooy même émission ce sont les mêmes personnes et qui parlent tous les temps. est-ce que nous, mën ne spécialiste en tout parce que gis euh, une chose. Mhm. xam ci il faut c'est-à-dire le fond la forme c'est rien du tout fond bi donc nag moo que ñi expert dañoo war tout temps parce que nous suñu secteur secteur bu sensible secteur stratégique dafa laaj xam-xam bu rëy rëy rëy dafa laaj gestu dafa laaj am humilité dafa laaj am discrétion donc nag coow li am na mais xam nga coow dañu ñàkk parce aussi bu amee ñoo xamante ni ñu ngi defar ak ñeneen ñuy yàq xam nga yàq moo gën a dem moo gën a yomb donc parce que ñoo xamante ni aujourd'hui dañuy détourner conscience nit ñi ne leen kat gars yi signé ay contrat yu baaxul sàcc nañ kii dafa man papa su dëggee day mel ni sénégalais yooyu demoon négocier contrat Sénégalais yuy appuyé si code pétrolier bu Sénégal dem négocier contrat yi dafa mel ni ñooñu duñ ay sénégalais wala ñooñu xamuñ seen liggéey wala ñooñu mënuñ seen liggéey wala ñooñu duñ ay citoyen wala duñ ay patriotes alors que ce sont des patriotes sénégalais ce sont des sénégalais yoo xamante ni ils ont appris dans de bonnes écoles ce sont des sénégalais qui ont travaillé pendant des années qui ont fait des qui ont fait des négociations pendant des années ñoo indi ne lii kat baax na si Sénégal nañ ko def ñu def ko te aussi nit ñi dañuy code pétrolier en 1998 le code boo xamante ni c'est le remplacé le 86. Le 86 a rigide maintenant en 1998 pourquoi n'était 98 pas seulement le code pétrolier c'est l'ensemble du secteur de l'énergie qui a été révisé parce que dañoo réviser la la loi buñ ci a créé la commission de régulation du secteur de l'électricité en 1998 si nous libéralisons libéraliser le secteur aval des hydrocarbures la loi 98 31 du 14 avril 1998 donc ci nous ñu def encore le code pétrolier donc la loi 98 65 portant code pétrolier donc bu ñu defee yooyu code bi dafa japp bu ñëkk ba dafa xawoon deugël maintenant bu 98 dañ japp né réew mi kat dañoo soxla ay nit ay compagnie pétrolière yu ñëw pour def recherche Moi, tax mo taxoon ñu naan code 98 c'est un code de promotion. Hmm. donc et d'attirance donc pour attirer les entreprises pour ñu mëna au ñëw Sénégal def recherche parce que am na un bloc benn instant ñëpp ñëwoon nañ seet gisuñ dara ñëpp daw daw nañ maintenant Sénégal bu léegi yi ñëw seet maintenant 98 moo tax ñu allégé woon ko donc nag boo xoolee 98 donc loi texte décret comme de contrat yu signé si 1998 yëpp tey kenn mënu ko changé parce que en droit dañ jàngal la loi n'a point d'effet rétroactif elle s'applique pour l'avenir te même bu fekkente ni les lois d'ordre public yi ñuy wax ne am nañ droit mais mënuñ rétroagir dans le contrat bu xasee bu signé loi bu ñu signé rek la moo ko mooy appliqué contrat bu mënoo tax ba changé ko parce que boo ko day indi ce qu'on appelle l'insécurité juridique dans le pays te insécurité juridique danger lool loolu investisseur boo ko dégg si réew dootul ñëw donc nak 98 passé na signé nañ ci ay contrat contrat yooyu man japp naa ne c'est de très bon contrat yoo xamante ni intérêt réew mi moo tax ñu def ko donc nit ñu bëri dañ doon jaxase xelu nit ñi di ne Sénégal 10 pour cent la am mais loolu du dëkk Sénégal amul 10 pour cent parce souvent dañuy jàpp ne dañuy foog paaru Petrosen mooy paaru état bokkul état bi Petrosen loi bi def ne société bu fi créé bu fi am contrat dañ lay am dañ lay créé beneen société au Sénégal société boobu nga créé da nga war a jox sa part sociale conformément à l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés. Hmm. da nga war a jox sa Petrosen 10 pour cent gratuitement. ok du fay ak donc Petrosen day mel ni ci compagnie bi la bokk bokkul ci état bi donc Petrosen ak compagnie bi dañuy am seen part état bi am part am. comprendre donc te part état bi mën na dem ba par exemple 60 pour cent donc ci biir 60 pour cent yi ñu ne état bi bokk moom 40 pour cent des yi compagnie bi ak Petrosen ñoo koy bokk. ñoo koy bokk. comprendre xam loolu yëpp nit ñi parfois dañ koy wax parce que mais dañuy jaxase xelu nit ñi. maintenant 98 pages, la loi 98 pages, le président Macky Sall bu il demee ba gis pétrole ci réew mi am gaz donc ci la loi xoolaat la la loi portant code pétrolier donc ci la def loi en 2019 février je pense 1er février 2019 la loi 2019 03 donc ci la ñu modifier le code pétrolier parce que maintenant on quitte d'un pays non producteur à un pays producteur donc ça change complètement parce que maintenant am nañ espoir que les suñu réew am na pétrole moo contre contrat code bi dañ koy xaw a gën a corsé waat gën ko deugul n'empêche nag il faut ouvrir ouvrir ay brèches pour que société mën a ñëw maintenant bo xolé code bu bees bi dafa ab dafa indi ce qu'on appelle un appel d'offre maintenant euh, compagnie c'est état Sénégal dafa def répartition des blocs maintenant sociétés yi dañuy ñëw soumissionné maintenant état mooy def appel d'offre sociétés yi soumissionné après ku def meilleure offre bi te parfois aussi man damay dégg ñenn ñi ne amoon na temps boo xamante ni defoon nañu am na benn société bu mooy Total ma tudd tur bi rek ñu ne Total dafa proposé risque offshore te ñu ne ñu ne Cosmos moo gënoon a baax proposition mais dañuy dafa am lu ñu jàngal en code des marchés publics y a ce qu'on appelle le mieux disant et le moins disant mooy bu gën a mais dix ans mooy ko gën a yombale mooy gën a baaxee maintenant booy jël doo gën a jël ko gën a yombalee da jël ko gën a baaxee moo tax mën nga jënd oto dans le code des marchés mën nga jënd oto kenn ki propose quinze keneen ki propose vingt dix huit millions ku da ko rejeté doo ko jël donc ku propose dix huit millions yi donc moom moo tax buñ nekk Cosmos ak Total donc ça veut dire que nous avons, une proposition technique et une proposition technique Cosmos. Cosmos Nous les deux propositions techniques Nous devons maintenant évaluer parce que nous avons une évaluation normale dans le code de marché. Nous Nous une évaluation même si le code ne s'applique pas au contrat pétrolier mais d'abord, exemple toujours Nous avons un contrat vous ñu jox euh, marché bi donc nous rôle techniquement est-ce que la société est bonne. ou bien ah, bu dee techniquement la société elle est bonne duñ sax ubbi elle n'est pas pour moi baaxul. Mm-hmm. duñ sax ubbi offre financière ci offre technique bi la ñu yem automatiquement bu fekkente ne yow amoo moyen rek dañ lay génne duñ sax xool offre financière donc moo tax toujours duñ wax ne rek kii moo offrir loo gën a baax kii moo offrir loo baaxul moo tax ñu jëmiñ ko et cetera donc toujours il faut ñu équilibrer que que li ñuy li ñuy ñuy wax. D'accord. Alors, alors euh, monsieur Sow ndax euh, pétrole bobu ñu jéxalé foofu rek euh, ndax tey jii ni bu Sénégal ni mu ko amé fi ndax amul ben jafé jafé bo xamné mën nako jur pour ci réew mi. non pétrole bi jafé-jafé, am parce que lu tax do am jafé. disposition yépp jël nañ ko disposition yëpp dafa bàyyi parce que bo xolé même avant code pétrolier bi ñu modifier modifié 2019 Ici, Sénégal adhère la ici. donc ITIE day xool compagnie lu ñuy am. Et état bi lan la L'État, bénéficié euh, président de la République créé ce qu'on appelle le COS Petrogaz conseil d'orientation stratégique pétrole et gaz qui aujourd'hui c'est composé de toutes les structures de l'État plus la société civile plus maintenant les partis politiques de l'opposition donc nous nous avons été tout, même les dañu xool avant ñu négocier avant de signer le contrat nous avons été encore. donc vous ne parlez plus d'autre. le code pétrolier a été modifié parce qu'on quitte comme mhm. nous ah, nu la donc pays non producteur en pays producteur. donc jóge nañu vous y ñu de ci loolu defar nous nous loi bu am importance moy la loi sur le contrôle local. la loi sur le contrôle local moi dafa favoriser les entreprises sénégalaises et favorise encore la main d'œuvre sénégalaise donc aujourd'hui entreprises sénégalaises tey mën compétir dans la sous-traitance etc, etc et cetera euh, également mën compétir. Parce que à, compétence égale, on choisit toujours les Sénégalais et les compagnies sénégalaises. Donc loi beaucoup beaucoup nañ Pour parlez que ci le président de def beneen loi bu ñu la le code gazier. donc beaucoup aussi Moi, réguler le secteur du gaz donc moi mooy lu le secteur intermédiaire c'est-à-dire le transport le stockage C'est loolu aussi kon loi le local qui am donc sénégalais yi ñoom le stockage et dans le transport. Mais également, il y a une loi qui arrive, c'est la loi sur la répartition des revenus pétroliers. Donc, la loi nous ñu koy bind te xam naa donc président de la ne que nous ñun rek génération actuelle du moom moo war si pétrole mais même les générations futures du moment bénéficiaux. Et, bénéficier avons toujours que constitution construction bu Macky Sall def en 2016 c'est-à-dire le référendum 2016 xam situation bi changé parce que fu la waroon commencé d'ailleurs dañ les ressources pétrolières les ressources naturelles pétrolières et minières et tout appartiennent maintenant au peuple donc l'État ne fait que travailler pour le peuple donc étant donné que maintenant ça appartient au peuple du Sénégal au Sénégal. donc si on découvre le pétrole même à Saint-Louis ça veut dire que c'est tous les Sénégalais ont koy bénéficier donc nag comme que nous yëpp def nañ ko man jàpp la nu tudd la la la la nu la malédiction pétrolière. incha allah du ñu du ñu ñëw parce que ñun Sénégal bu ñu defar code bi Sénégal dañu def benchmark dañu dem si réew yu bëri même bu ñu defar la roisine de bu ñu pétrole yi bu ñu defar actuellement gars yi dañuy dem ay réew yu bëri xool ban réew moo amoon problème ban réew moo defar mu jaar mu jaar yoon ban réew moo nekk moo xaw a tane et cetera donc loolu lépp la ñuy xool maintenant dajale ko defar benn texte boo xamante ni Sénégalais yi ñëpp ku nekk dana gis boppam ci président moomu ko ministre yi moomuñ ko gouvernement moomu ko sénégalais ñépp ñoo ko bokk ci lañ defar ay tañ danañ defar ay école danañ defar ay forage danañ defar ay hôpitaux ay donc ak ay yeneen yeneen yoo xamante ni ku ci nekk ci boppam danañ financer agriculture bi dana financer élevage dana financer pêche loolu lépp pétrole mën na ko financer donc loolu lépp nag dañ koy tënk ci loi bi ñu xool la loi sur les revenus yooyu bu ñëwee nan lañ koy gérer ak secteur bu nekk nan nga ci mën a bëri bénéficier donc nag incha allahu taala yaakaar naa ne daal président bi yoon bu mu nekk ci moom xam na secteur bi parce que liggéey la ci yàgg na ci liggéey te en plus tey def na ministre euh, Sophie Gladima également elle connaît très secteur de l' énergie parce que ingénieur géologue la donc c'est-à-dire aujourd'hui ay ingénieurs ñoo seq secteur bi te ay patron lañu donc incha allah dana jaar yoon sénégalais ku ci nekk jërëjëf euh, sénégalais yi ku nekk si dina si gis boppam mu nekk euh, Birame Sow di euh, koo xam ne tey jii ne xelam dafa màcc si wàllu yoon waaye si yoon woo xam ne si wàllu entreprise yi ak nan la entreprise war a mën a taxawee si yoon ñu ñëw rek si li nga xam ne moom mooy gis nañ voyage nga voyage yu bëri Belgique Casablanca def dañ doon def tourisme wala mun nga ñëw expliquer voyage yi nga xam ne def non voyage yi may def yëpp damay jàng parce que Euh, pétrole bi bu ñu ko découvrir ñun ñëpp dañoo continuer di dem di def ay renforcement de capacité donc euh, dem nañ ci Belgique dem nañ ci ay Maroc donc dem nañ Canada tout ça donc pour dem xool jàng réew yooyu nu ñu organiser seen texte man nag lu ci gën a bëri bu may jàngi droit bi laay dem jàng xool surtout côté régulation nan la def nan la ñuy réguler secteur yi foofu au niveau de du Canada euh, au niveau de du Maroc également au niveau de la Belgique de la Belgique Belgique dañoo demoon les dépôts de stockage Dans les def dépôts yi bateaux yi nan la déchargés. bateaux yi nan la donc ñu bëggoon vraiment au Sénégal aussi donc dañuy def benchmarking donc dañuy def benchmark dañuy jàng donc on fait beaucoup de formation dans ces pays là donc euh, du tourisme mais jàng parce que jàngkat mois. Monsieur Sow ñu ñëw tey ci wàllu politique est-ce que vous nga ñëw wax noo duggee ci politique ak euh, tey jii nii foo politique ci biir Jolof. bon politique moom maa ngi ci bu baax donc man politique bu mu si duggee xaw na yàgg tuuti boobu je pense que élève laa woon je vais même pas aw moom sax âge voté ci laa dugg ci euh, politique donc mooy bu ñu dàqee jiboo ka di parti socialiste bu mu génnee parti socialiste donc euh, ñu toppoon ko ñun ñëpp donc euh, jàppale woon URD man URD laa nekk nekk milité dans dans un parti politique donc yàlla def ba mu demee ba université Cheikh Anta de Dakar nous créons le mouvement des élèves étudiants de renouveau donc nekk naa pendant un grand responsable je faisais partie des trois responsables du, mouvement donc pendant euh, presque 2006 donc en 2006 donc la suspendre son activité politique donc pour des raisons personnelles je vais donc beaucoup de donc euh, ñu ñaanal donc je dis que nous a beaucoup appris parce que man je dis qu'il y a deux choses si Djibo Kala il y a la patience parce qu'il nous disait toujours en politique il ne faut jamais prendre les escaliers il ne faut jamais prendre l'ascenseur il faut prendre les escaliers donc il disait de la vie de façon générale ce n'est pas seulement en politique donc patience c'est mon lañ et la culture d'homme d'état c'est-à-dire que je me rappelle très bien vous me donnez fréquente, je me dis, vous savez tout si vous sortez vous savez rien donc loolu dafa am solo si nit nit ki mooy boo ñëwee fii dañ lay wax lépp mais boo génnee membre un homme d'état du tey comme Sénégal lu mel man tey maa ngi président Macky Sall su ma su ma génnee si président Macky Sall lu ma xamaloon Macky lu bon ma defante ak woon noonu wax ko lettre bu mu musoon a bind ma wax ko loolu du homme d'état du def loolu homme boo xàccee ba génn donc da nga war a nopp moo tax dañu war a rendre hommage fa jiboka kenn musul dégg jiboka mu wax si état Abdou Diouf te pourtant nekk na ci ba génn ci bu mu génnee ci état Abdoulaye kenn musul dégg mu wax ci donc mooy également le feu Ousmane Tanor Dieng kooku aussi dañ ko war a rendre ak également président Moustapha ak euh, mon père Abdoulaye Makhtar Diop c'est-à-dire ça c'est des gens yoo xamante ni c'est des hommes d'état au vrai sens du terme parce que ñii doo leen dégg Il wax avancer et parler d'autres choses donc il été l'a déjà l'a passé d'abord et maintenant quand il est sorti de l'affaire quand il est sorti du PDS quand il était même président de l'Assemblée nationale la première personne qui m'a amené là-bas il s'appelle elle s'appelle Seydou Diouf moom moo nekkoon attaché cabinet Macky Sall président de l'Assemblée nationale donc il a rencontré un certain candidat qui est son chef de cabinet donc il a tout sax xamatuma ci lu maintenant ñooñu ci laa njëkkoon a dem xamante ak ñoom waxtaan ak ñoom ci euh, jàppale Macky boobu sax kiiwul après maintenant ci la créé créé woon Thérèse Faye ci la créé woon Jom jeunesse ouverte à Macky Sall ñun ñu jàppoon ci donc je pense que les années 2007 maintenant en 2008 bu ñu créé APR automatiquement dama dugg APR boobu maa dëkk benn tali maître Djibril War moom mooy moom moo sax moo mën a témoigner affaire parce que moom laa dëkkaloon benn tali ñoo doon defandoo lépp ñoo doon jaayandoo carte les cartes membres. Mhm. ñoo doon defandoo la mobilisation dans le quartier man je dis quartier bu mu dëkkoon benn tali ñoom ñëpp maa ngi jaay carte affaire ñoom ñëpp te man Jolof laa dëkk mais kon que dama dëkkoon benn tali amoon nit ñi jàmm yàgg fa dëkk naa fa 10 ans miinoon ma c'était facile donc moo tax maak maître Djibril War a travaillé ensemble benn tali donc ba yàlla def. Euh, après euh, Macky Sall bon mu président de la mais avant l'autre aussi si là bon on président de étudiants de rencontré Ali Ali je l'ai rencontré pour la première fois en 2006 donc Aliou aussi que moi, fekk ma suspendre sama activité politique ci le mot wax le mouvement pour créer une MRD donc c'est n'est pas mouvement politique donc nous commencé aussi à travailler avec sur le mouvement bi donc ba y a qui Macky Sall donc parce que moi j'étais proche de Aliou et j'étais encore un militant de la paix. Donc j'étais dans les deux. J'étais dans le pouvoir Ali en tant que membre du mouvement, en tant que dialogue, mhm. mais également un militant de l'Alliance pour la République. Donc moi je me rappelle très bien, le ministre pourra confirmer, quand il a rencontré le président Macky il m'a appelé. Parce que Gisnaki, Gisnaki, Gisnaki, il m'a donné des noms. je suis là. Mwen mwen konye yon se pozisyon kama. Diyaroun eh. sa mwen yon kontine. Te mwen khamon nan, jit nge bo ou non, jisave persi nan wak ayoun mwen, dey teki Matisal. Pake, amne bel nou joul, mwen tonke, Matisal lo wopo. Nen bo, mwen gen dem diorof. Ayoun mwen yon mwa wop, nyon malon yay, pou nyon akir Matisal. Te bo bousan, koman se bousan wak tan ak mwen, pou doubou, doubou bousan daye. Diyapole wopo, pask se te, jupanse an 2010. mooy tournée bi def dans le mu toog këram muy wax nit ñi nañu nañ accueillir Macky donc ci laa la jàpp sama xel ma kii nag dana jàppale ji Macky te man aussi peut-être aw ma woon njëriñ aw ma woon doole aw woon benn pouvoir bi mais am na ñoo xamante ni tey fexe woon naa ba ñu dem seeti aalimu yi pour wax ci Macky Sall muy ku mel ni Ibrahima Sall ancien ministre de l'éducation nationale mooy modèle boobu il était dans Macky 2000 dans Macky 2012 kooku mosoon wax ne ko. na dem seeti Aliou ñu wax ak moom Aliou Sall également mosoon naa ko wax na dem seeti ñooñu ñëpp ku ci nekk koo xamante ni xamoon naa la mënoon nga def dara dem wax ak moom wax naa la ko nga ñun ñëpp ñu dem wax ak Ali ba yàlla def euh, Ali fekk ci Macky Sall jàppale ji Macky en 2012 te aussi bu mu jàppale Macky en 2012 dafa fekkoon ñu defoon benn étude te étude bi maa ko dirigé woon. waaw ah waaye étude étude bi ni ñu ko defee woon dañoo dem dafa choisir benn cabinet de consultance un certain Diao il est actuellement le président du conseil il est secrétaire général du conseil départemental de Vénégar. il est de à Casamance Diao moi, mo suis le cabinet de consultance man ma tan 25 cinq étudiants Aliou muy fay ku nekk soixante quinze francs ñu dem daanoon le Diao def ay documents de collecte ñu def collecte yi def wër département bi yépp en toute discrétion kenn xamul lu ñu def kenn xamul maintenant quand on a fini ñu génne maintenant benn benn document bu rëy def naa 500 pages ñu résumé ko en 100 pages 100 pages la le le ministre Aliou Guèye présenté mu ne ko waa les problèmes du Dior est-ce pare nga pour jàppale ñu ba président ne xool ko mu ne ko su jotee réew mi li nga def si document bi yëpp danaa ko def te yàlla xam naa ne tey soo demee Jolof. defe naa def na lu ëpp soxla document il a fait beaucoup de choses dans le Jolof donc loolu c'était juste benn parenthèse donc nag euh, bon ci lañ dugg ci politique bi Ici, ci yëngu ba Macky Sall le président de la République donc man Ali mu jëloon ma def ma attaché de cabinet donc ci laa nekkoon euh, di ci yëngu donc j'étais je suis à côté de de Ali Ali ñoo politiquement on est dans dans le département l'Inger. donc APR man Ali mooy suma responsable APR dans le département Linguère Macky Sall nag mooy suma président parti donc je suis un militant de donc parti politique donc je suis un militant de l'alliance pour la pour la république donc voilà un peu le parcours politique donc dans le département de Linguère également nous sommes ci def donc euh, à en 2009 déjà mon euh, suis na def ci liste conseil municipal commune de Linguère parce que man suis la dëkk avant j'étais élève en 2000 je pense 2000 commençais commencé inscrire donc là n'est pas, l'ingé n'est pas voté. Tu man voté l'ingé, te nga que donc c'était la jeunesse quoi donc euh, je savais pas l'impact que ça allait donner dans l'avenir maintenant en 2012 à Louis, je me demandé et j'ai accepté volontiers de retourner à Bakéli. donc c'est la fin de une élection vois pour Barthélémy mais jusqu'en 2012 j'ai voté à l'ingé. donc nag euh, ci la ñu nekk Linguère pas mosuma fa mais aussi ñu ngi si euh, liggéey di jàppalante foofu au niveau de Barkédji malgré que c'est bien bien que c'est parce que y a trop ay nu tuddati ay euh, comment dirais-je concurrence bu xaw a ay tendance ay tendance yu métti mais man moom yàlla dafa def man bokkuma si benn tendance man daal nee naa leen Aliou mooy Aliou Ngouye mooy suma responsable au niveau du département Macky Sall mooy suma responsable au niveau national donc ku ànd ak Macky Sall ñoo ànd ku ànd ak alim bi ñoo ant donc moo tax man j'ai pas de tendance au niveau de parquet. je peux entrer dans toutes les maisons alors que bizarrement bizarrement les gens bu nekkul ensemble ils se fréquentent pas ils se ils se font pas des choses bon doy na waar daal du ñu fekkante bu dul ay béy peut-être mais bu dee rek lu am solo yeneen ay fréquente dem seeti keneen kii dem seeti kële gars yi duñ koy défendre mais man moom j'ai pas j'ai pas de frontière je fréquente tout le monde d'ailleurs ça les gens avec qui je suis le plus ils ne sont pas avec Ali et pourtant nous sommes tout le temps ensemble donc nag politique parce que politique parfois dañuy confondre politique ak mbokk te loolu warul waruñ ko boole mbokk yi mbokk la te mbokk du question ko ko bokkal deret mais ko ko bokkal dëkk kooku mooy la mbokk déjà donc nag waruñu def politique de tendance boo xamante ni daf ñu yàqal ñun parce que jibokaay dafa am lu ñu doon jàngal nee nañu en politique il faut jamais dire jamais gis nga politique bu nekk nit nga tàgg ko ba foog ni moo fi gën bul nekk bul bay nekk nañu nga xas ko bu mu foog ni moo fi gën a bon parce que politique c'est des retrouvailles li des séparations je l'ai dit récemment dans sur ma page Facebook bi naa ko récemment donc ñun dañu war a am rafetal soo àndee ak nit ànd leen ci ngor dignité respect boo àndul ak nit respecté le point de vue respecté idéem bu waxee loo xamante ni yow d'accord ci nga ne d'accord ma ci man nii laa ko foogee parce nit aussi mën na wax nga bañ Donc on ne yaa dit, de de la vérité n'appartient à personne donc c'est l'ensemble des vérités qu'on additionne mhm. de la vérité de chacun qu'on additionne pour avoir maintenant une vérité avec V majuscule d'accord monsieur êtes est-ce que euh, candidat pour élection yi pour mairie ou pour yi man man kay newoon naa la benn candidat je suis candidat rien man instant bi maa ngi toog surveiller di suis euh, carte parce que aussi élection locale peut-être bien ñëw dana xaw a changer ça sera peut-être euh, un maire élu directement donc euh, donc vous vous donner nañ on verra donc euh, la recomposition dans le département elle pas en tout cas partie bi lu mu le lu d'accord parti bi lu mu tànn maa ngi ci ginnaawam waxtu wi li ci des bëreetul waaye ñu ñëw ak yow ci benn rek ci gouvernement bu bees bi nga xam ne président tabb na ko ñu bëri nag ñu ngi sànni sa président de la république ne ay nit yi démbam def leen naa bàyyi ba pare xëcc ñeneen ñi nga xam ne ñu ay noonu lañu woon c'est ba ñuy xëcc réew mi di ko doon wut ndax bokkoon nañ ci ñi leen doon buntu xatal looy tontu askan woowu di waxee benn côté ba. xam nga président de la ko may c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. mooy nangu ku nekk te gis nga nit ñi lu un président l' information ci la les renseignements ci la man aw ma ko keneen aw ko moom moo ko am donc moom mooy apprécier ñan la war a def ku nekk ak fu mu la def donc moo tax parfois moo euh, le comportement de lui, de Amadou de Makhtar Cissé m'ont beaucoup plu et de Boun Abdallah Dionne parce que simplement dañuy jàpp ne c'est pas parce que man nekkuma ministre dama war a gedd xam nga lu ñu parce que doon gis parce que ñii c'est c'est la c'est première man lu ma gisoon depuis Ablaye Wade ba léegi képp koo xamante ni def nañ la ministre génne nañ la rek gedd na parti ba donc nit ki c'est pas parce que président de la République bi c'est pas dindi na la rek parce que y million 16 millions de Sénégalais donc nag bu la dindi nga mer non dañu war a toog gën ko jàppale gën ko dooleel parce que loolu moo taxoon ngeen ànd àndu leen woon pour un poste de ministre da ngeen àndoon pour defar réew donc yow boo nekk ministre ñàkk nekk ministre mën nga liggéey réew mi donc man jàpp naa le président de la République après analyse après recoupement d'information yu mu am les renseignements yu mu yor dafa jàpp ne voilà la meilleure méthode maintenant méthode bi il faut mu évaluer pou peut dans dans six mois il commence à évaluer est-ce que moom les décisions qu'il avait prises est-ce que décision yooyu noonu euh, mu ngi àndal ak moom lu mu bëggoon donc à dans six mois dans 6 mois à 8 mois il va commencer à évoluer mon xool est-ce que ñun ñëpp ñun sax Sénégalais yëpp ku ci dans quelques mois mon ngi évaluer nga est-ce que le ministre là yoo xamante ne dafa ci poste yi ils sont capables de le faire ils sont capables de faire de de mettre en œuvre la politique qu'il a définie ou bien non donc nag man jàpp naa ne Sénégalais yi dañu war a président de la République si lu mu def ñu bàyyi ko ci ñu xam ne moom la ñu fal donc mooy confiance nit mu jàppale ko mu jox ko poste boo joxee poste yi mu liggéey ko c' est pas parce que au Sénégal parce que Sénégal dafa am benn sociologue boo doon mosoon waxtaanal mu ne c' est que Sénégal dafa am dafa am benn attitude bu ñu am si politique wala ak nomination parce que nit ñi da ngay xool ñu ne la ñëpp dina naan félicitation kenn war a wax félicitation la war a encouragé parce que félicitation c' est comme si yow da nga dem pour am parce que nit ñi bu ñu la rek les gens pensent toujours à l' argent c'est-à-dire yow bénéfice bu nga war a am si poste parce que souvent da ngay dégg sa mbokk journaliste yi ñu jël nomi nit benn poste lu ñu xool mooy budget bu ñu ko jox ñu naan il pèse cent milliards il pèse deux cent milliards alors que milliards yooyu noonu cabinet moom ministre du cabinet les cabinets du ministre ne dépassent pas cent millions tout le reste c' est dans les directions c' est dans les salaires c' est dans l' investissement yaa ngi comprendre donc moo tax souvent nit ñi bu ñuy ñu bu ñu la nommee rek waruñu xool yow li ngay am ci ministère bi dañu war a xool yow li ngay def foofu. lan war a def pour que sénégalais ku ci nekk gis ci boppam sénégalais bu ci nekk mën a problème yu ñu nekk yu nekk ci Sénégal te problème yi du mës a jeex mais problème yi mës a mën a wàññeeku donc loolu nag il faut ñu jàppale ci président République ñu accompagner ko ñu ne ko nag ñu ngi sa ginnaaw di la dooleel ñu bañ ko ñu bañ ko néewal doole ko d'accord ñu ban koo néewal doole waaye gis nañ ñu bëri si seen parti tey jii nii euh, ñu bëri président ñi président moo leen dàqulu ñeneen ñi ñoom ñoo toog seen côté ñu jël euh, ki nga xam ne ñoom Moustapha Diakhaté nga jëlaat aussi euh, tey jii nii ki nga moom mooy maître Moussa mi nga xam ne tey moo yoroon Dakar dem dikk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay ñoom Cissé Lo waxoon fi lu nekk ndax loolu mënut leen a indi ay gàllankoor si élection yi ñëw. man jàpp naa ne duñu indil xam nga. Euh, le cas de Moustapha Diakhaté sama mbokk jolof jolof la mosoon na benn jour mais xam nga ñooñu dafa am benn peut-être bu am te mënu man mënuñ ko wax mënuñ ko wax nit ñi man honnêtement xaw ma par frustration la ñu am maître bàyyi président Macky Sall. ah non waru ko woon bàyyi daf ko waroon continuer di ko jàppale parce que daf kaa nommé directeur général si benn direction générale pendant des années. Mè nan, se pa paske di lè nòkou fòvrè, dekwa wara dansi, dekwa wara bayi, non. Defwò waron kontinu, defni nyonm alevou lèf, nyonm matasise, nyonm amorba, nou mi defè. Biè ki di lè lè se di posè, men yon konnen di aple prezidant lèpik. Nyonm mòm oji, boni pisi dinde, defwò waron kontinu, defwò waron diskour w rasek, amgò, kontinu di di aple prezidant, pwè tèpke prezidant de lòkou denkate lèm. Kòmpran? Mè nan, konsèr nan nekkoon nañ ci parti bi comme sama xarit Thierno Alassane Sall ñoom ñëpp bàyyi bàyyi mais man dama jàpp ne ñooñu. ay ñoom Mimi Touré ah. Mimi Mimi moom Mimi affaire Mimi elle n'a pas encore dit bàyyi kenn dégg mu wax. ah si tànk bàyyi la moom. ah mais en tout cas man de dégguma ku ñu bind gisuma ku mu bind moom gisuma ku mu waxe gisuma ku ko jege fu mu waxe te man kat xam naa ay ñu ñu ñu ay jege doom yu bëri bëri bëri mosuma gis kenn si ñoom en tout cas sur soit soit sur les réseaux sociaux que ça soit au téléphone mais ñoom ñëpp instant bi ñu ngi teg di analyser di xool mais jàpp naa ne mbir mi également dafa war a bien que dafa métti nag dafa métti parce que mu nekkoon euh, ba koo xamante ni moo Idrissa Seck c'était di dóor c'était di dóor fayu donc kooku remplacé la day xaw a métti jàpp naa ne que addina moo demee noonu c'est un chemin boo xamante ni c'est quelque war a elle revenir au côté du président gën ko jàppale gën ko dooleel ñu xam ne ñun ñëpp Sénégal rek mooy tax a jóg c' est pas notre propre personne c' est pas les postes que nous mais Sénégal bu ñu jógalee Sénégal rek postes yi dañu ko teg fële ñoo xamante ni liggéeyu réew mi ñu jàppale le président parce que président bu réussir réussir Sénégal bu réussirul ñun Sénégal ñooy échoué du moom kese mooy échoué Sénégal yëpp koy échoué. donc nag ñun dañu ko war a jàppale.

à côté de Premier ministre Mamadou Boy et du président Macky Sall, ministre de l'Intérieur, je pense, je ne sais pas, je pense ministre en tout cas, euh, le Sénégal a gagné l'équipe qui avait gagné la Coupe du Monde, donc le Sénégal est champion du monde. Mhm. Donc, demain, japonais, pas beaucoup de il y a le Sénégal Coupe du Monde, même si quelqu'un pas a une coupe. Parce que nous avons gagné, nous avons gagné une coupe, nous avons gagné une coupe, nous avons gagné une coupe, nous avons coupe donc nak diko diko ñaanal euh diko ñaanal Sénégal ñaanal mbokkam yi fu mu jëm yalla gën ci mom yàlla na ko yàlla en tout cas il mérite aujourd'hui il mérite il mérite il mérite des hommages parce qu'il a beaucoup fait pour le Sénégal il n'a pas marqué que le but contre la France il a marqué d'autres buts importants qui ont aidé le Sénégal à se qualifier en quart de finale en huitième de finale et en quart de finale donc dama il ne vraiment nit qui mérite un tey hommage parce que nit Abdou Diouf Mohamed, pour déflorer, defar am lu rëy te pap boobu def def lu rëy en tout cas mu jëm yàlla na gën yàlla na ko gënal yàlla na ko yàlla xare ajana mu may mbokkam xolu donc ñu ngi ko jaale sénégalais yi yëpp di ko jaale ci téléspectateur di la ko jaale également parce que nit ko xamante ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que quand même c'est un patriote sénégalais qui a beaucoup pour le Sénégal yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko ajana amin jërë jëf mbokk yi ñu doon bàyyi xel seen émission de découverte Makayre Ndiaye di koy def seen seen euh, Sokone TV tey ji nii nag ñoo amoon ki nga xam ne moom moo nekk euh, monsieur Sow euh, nekk koo xam ne day yëngatu si wàllu yoon waaye itam si yoon nga xam ne daal si wàllu entreprise tey ji nii nag ñu ñëwoon seet si ko dégg ngeen si wàllu politique si li mu jaar monsieur Sow lan ngay wax ñi nga xam ne tey ñu ngi jàkkaarloo ban message nga leen di bàyyee ndax nag waxtu wi jeex na tak maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen wax euh, bu wax bi jubee ci yàlla bu dëngee ci ñun la parce que nous sommes des êtres humains donc dañuy juum te également di lancer un message à la jeunesse di leen wax ne on peut bien réussir au Sénégal soxlawul ñu dem Espagne soxlawul man de tey ku ma ne woon man émigré dama mosul bëgg sax day dama kaa bëggul man je préfère rester au Sénégal même bu fekkente woon aw ma bureau tey maa ma dem si nag yi xar yi bay. donc nous au Sénégal aujourd'hui nous avons une possibilité yu faire bare bare Les jeunes sénégalais yi waruñu jël émigration clandestine de dem ay Espagne di dem aussi boo fa demee da parce que boo demee Europe nga gis les jeunes sénégalais nous ñu mel ba ba bu ñu gisee dañ leen làqatu da ils sont paralysés. donc moi, je ne képp ñi ñii di wax ni Ce Sénégal je naan jeunes yi di jéem erreur de communication personne ne doit justifier doit établir aussi du un problème d'emploi non parce que man je parmi les jeunes man je suis le bu baax ñoo xamante à avons dañu am liggéey fi bàyyi seen Donc, dem donc pas un problème d'emploi c'est un problème de sahélien gis nga mosoon naa bind une contribution récemment sahélien pas de tout. soit c'est naturel ñun sahélien avons beaucoup de voyage donc nous, moi parfois dañuy tukki ba def lu ñu wax de parce que da ngay xool sénégalais rek boo nekkee Gambie sax wala nga nekk Guinée Bissau wala Guinée dañu naan expatrié donc dañ lay seet ci kaw quoi c'est-à-dire sénégalais boo nekkee euh, à l'étranger rek nga nekk moodu moodu que ça soit Guinée Bissau que ça soit Gambie que ça soit n'importe où donc euh, il pense que ci euh, kii ko alors que réew mi fii fii lañu war a toog mais buñ doon exemple Baba Gar Baba Gar Ngom est-ce que mën na def mu Et pourtant, aujourd'hui, ils gèrent des milliards. Ça, c'est un exemple. Les, les, les est-ce que nous nous nous nous dañu réussir nous nous Cheikh Amar nous Youssou Ndour ak ñeneen ñoo ak ñeneen nous, ñeneen ah, des grands entrepreneurs nous avons nous, nous, créé des emplois donc nous nous en tout cas man de nous, nous, biir man nous, def nous, bay jënd xar damay jaay xar donc je fais mon business parce que kat salaire du mënul salaire du mënul yor parce que newoon nañu sëñ Fallou newoon na koo xamante ni yow xam ne ñaar ngay am per weer mm. kooku mooy kungóoru mm. mais c'est la réalité donc nag moo tax il faut ñu investir dans d'autres domaines yoo xamante ni tey am nañu suuf am nañu ndox nañ ci profité liggéey ci et puis euh, bañ a def en tout cas message boobu laa bëggoon lancer jeunesse bi waxtu bi dafa jot dafa jeex mais message boobu vraiment je tenais à la qu'on reste au Sénégal, qu'on travaille pour notre pays, qu'on travaille pour le Sénégal, parce que le Sénégal compte sur sa jeunesse pour, que qu'on atteigne l'émergence que les autorités sont en train de nous, de nous montrer. Donc l'émergence du Sénégal, c'est pas que les autorités, mais nous nous pour nous atteindre donc pour nous atteindre nous nous nous, nous, suñu Nous nous suñu nous, nous ba egg tey fu ñu egg parce que Arona Dia boo nee egg milliardaire donc loolu daal vraiment laa amoon euh, lu ma ci wax maa ngi lay sant di la gërëm di sant say téléspectateurs di sant ñëpp. jërëjëf mbokk yi ñuy doon bàyyee xel seen émission de découverte tey euh, Makayre Ndiaye nag ñëwoon jàkkaarloo ak euh, Biram Sow dégg ngeen li nga kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fii ñu ngi leen di sant di leen di gërëm yow mi nga xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel foo mënta nekk ci biir Sénégal jàppal ne émission bi sa émission la jërë ngeen jëf mbokk yi.